waaw li ko waral rek mooy li nga xam moom laa tàmbali woon te waxoon ko sëriñ bi ni ko bu demee ba si màggal gi def juróomi fan ak après màggal gi dañuy mobiliser lu ma ñaar téeméeri jeunesse si dëkk bi ñu jox leen ay masque ñu topp dëkk bi yëpp képp ku ñu gis yoruloo masque ñu takkale maska loolu moo waral tey ñu dikkaat fii comme ni ma ko waxee woon ndax ñun ay taalibe lañu ndigal la ñu déglu te sëriñ Muntaxa bu ko joxe ndigal ñun déet ñu nelaw déet ñu yendal ndax lu nu am sëñ Touba loolu moo tax tey jii ma indi maanaam vingt cinq mille masques moom laa indi tey muy première journée bi pour que ñu tasaare ko tey si dëkk bi bu subaa tamit ñu defaat même chose ba keroog màggal gi jàll ba amaat juróomi fan ndax loolu mooy li nga xamante ni tey jàpp naa ne comme sëriñ bi nee na ñu ñëw màggal si ba pare maanaam di sàmm li nga xamante ne maanaam mooy fexe ba feebar bu du dal kenn léegi nag loolu moom kenn ku nekk war nga see bay sa loolu moo waral xale yi nga gis tey jii ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak li nga xamante ne mooy man ci liggéey bi nga xam moom la ñuy liggéeyal Touba liggéey ko Serigne Touba ñu ñëpp ñu maase pour ànd si loolu pour que ñu màggal si jàmm te kenn bañ a am mbas mi. dañu koy kon bu màgg jeex ndax ñun Serigne Touba moo ñu ñort lépp lu ñu wax Serigne bi fa yéene nañ koo defee loolu moo waral ñaar fi téeméeri junniy masque ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk yi ma joxe woon tey bu fekkente ni bis bu yàlla sàkk nga joxe 25000 masques. yaakaar naa ne maanaam mbooleem murid yi moom ku ma si ëpp masque du am te loolu nag li ma ko waral mooy pas-pas ak volontaire ak ngëm-ngëm ak bëgg-bëgg ci fii nga xamante ni day fi laa dëkk fi laa bëgg fi laa màgg fi laa yaroo sëñ Tuubaa di suñu maam woot si bisam bii nii kenn ku nekk tey la nga war a def yëpp mooy nga def ko bu ñu jógee si lii fas yéene nañu aussi tamit dem ci prison bi jébbal leen li nga xamante ne mooy seen ndaw lu màggal muy nag boo xamante ne dañ ko jënd pour jox leen ko ngir ñu nekk foofu te yàlla dogal ñu am ay nattu ñu jàpp leen si bis bi ban xamante ni li Serigne Touba doon wax ni bisu sama bis bi dikkatee képp ku nekk ci kaw suuf ak ku nekk si biir danga nga yëg ne maa ngi sama bis bi ñëw na loolu moo war a tey ji bu ñu jógee fii ñu continuer dem prison bu Mbàkke pour jébbal leen tamit li nga xam moo jëm seen xam nga maanaam moom ñun li ñu yor yaakaar naa ne bu ko doon séddale Touba yëpp du daj ndax mbooloo mais li am solo mooy dañuy topp maanaam fi nga xamante ne fan war a jaar boo jëlee xaay rek jëm 28 dem jumaa ja côté garage côté kër Daaru Rahman Daaru Minam Daaru Khoudoss fenn fu nekk xale yi dana def ay projet yoo xamante ay collecte la ñuy doon par personnes ñu dem pour séddale bu jeexee ñu dajawaat fii nii jëlaat bu soo ñu tàmbalaat demaat feneen ba keroog màgg gi ñëw ba jeex incha allah